ci biir kër diine ji danañ gàddu yet ne ci biti di yàq ku ñeme ba dugg ci biir kër tarixa bi danañ gàddu yet ne la ci biti tarixa bi dafa am sart diine ji dafa am sart pour nga bokk ci mais kenn du ci bokkee ay gént ak gis naa nangam ak nangam déedéet tarixa bi du tarixay gént ah te marte bu fi marte ba bu fi waay mën a woote am na ñu ne ko ëppale fuuf te woote wuñu Cheikh Alhaaji Umarul Fuuti daa dem Mali am génn góor nit nitu yàlla di ko nuyu mu gis góor gi jël loxo bi takk ne du nuyu kenn seexu ne ko lu tax doo nuyu kenn mu ne ko ah daaw ma ko wax kenn ne mais yow danaa la ko wax yàlla dafa dogal ma dégg yonent bi am cofeel ci moom ma dégg ne am na wali yu koy gis ma bëgg bokk ca ñoom ma jël dalaayilul xayraat yi bu imam Jazuli jàng ko junni yoon yonent bi feeñu ma ma nuyu ko gannaaw rasulullah yi daa jëfe gis ma jaar ci coono yii ma jaar pour gis ko waaw yonent bi ak ni mu seteeg nit ñi ni mu ta ni ñu taqee waaw dootuma nuyooti nit ñu taq ñi moo ma ne sama loxo bi dama koy bandi ba fekk yonent bi ca yowmal xiyaam Cheikh El Hadj Omar ne ko loolu doo nga tax nuyootoo kenn mu ne ko waaw cheikhu génnee kurusam rëkk benn per salaat al fatihi ne ko gestul waa ji gestu gisaat cheikhu ne ko nuyu ko mu nuyuwaat yeneen ci bi xool seexu gestuwaar xool gisul yeneen mu ne ko lu la may lii mu ne ko maa ngi ko amee ci barke Cheikh Ahmed Tidiane jaare ko ci salaatul fa ka ko wax loolu nekkuloon ci tarixa bi loon tiijaan mais keroog la sukk ci kanamu seexu mu jox ko wérdu keroog dem na moom waaja ca Mali ba mujj ponkalum muqaddam la ci tarixa Cheikhu Tidiane ci ndigalu Cheikh Alhaji Omar ndax cheikhu mi daan wér wérdo benn peru salaatul fatih di wane yenent bi mas naa woote maqaama yi wootekat yu bees yi di woote waaw lu mel nii de moo tax euh, el cheikh lama ci waxoon bu ma ko mënoon a wannaat dama koy wan na waaw réccu naa lool lu ma doon waxee dara ci el cheikh parce que dañ ko yab rek dañoo yab el cheikh te amul ndax ñàkk maanaam ñu ko défendre waaw li ñu wax el el cheikh te ay am ay wax yu ko gën a garaw fuuf am ñu ko gën a garaw fuuf te el cheikh bu ngeen xoolee am na ñu winuru te ñooy kenn ñëwu leen a tudd cheikh moom pare naa ci la ma la ma ko waxoon a kës ñëw bu ma ko mënoon nangu dinaa ko nanguwaat parce que nag du moom képp mooy phénomène boo xam ne si moo nar a tukkal àddina bi waaw wax ju wax juree jule dégg ngeen ko fi wax juree jule dégg ngeen ko fi euh, maanaam euh, jaamu yàlla dugalul kenn àjjana am kilifaay dugal nit àjjana kenn waxu ci euh, yowmal xiyaamati boo bokk boo nekkee ci tarixa cheikh jullil wooral ajal màkka se jaamu yàlla yëpp du dugal aljanna li lay dugal aljanna mooy ay mangasinu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la nga doon jaamu yàlla ak di ko ko woon danga koy yore ci mbedd yowmal xiyaama la lawee bu mu ko bëgg nga jox ko mais lu tax kenn deful ci ñoo ci ñooñu band mënumaa julli man mënumaa julli lu tax defuñ ci band aj màkk dafa metti moo tax man duma ko def lu tax defuñ ci band kon el dafa amul nijaay ju ko taxawul rek loolu mooy wax ci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني بك نزار لي ني الله سبحانه وتعالى من دفني التوفيق تي ديفال نكو واو فيديو بي ما دوغال كي تي واخ ماي ماتار سار آه، اوديو بي مجي تك دي لامين سال لي تما تاب تال نياري فيديو بي اوديو بي ماي لامين سال ولا فنيو دي فين لو خامني ديبي ديبي ني نكاي واخ اي هو شاهد شاهد من اهلها ما دا فنيو سيري ماي ني نون لي دون واخ ني ني دال غي ني دال ليغا خامني ماي كي دي الشيخ Euh, du dal ngir yàlla sunu borom du dal ngir défendre islam du dal ngir fiir ngir yàq gi mu yàq lislaam waaye fiiral seen seen yoon woowu la du fiiral sax seen yoon waaye fiiral ab benn mbooloo la mooy ñun nañ ñëw nañ bi installé wu ba am ñu ñu ñu topp euh, bëggatuñ keneen ñëw tamit di wàññi foofu dara wala di fa jël dara wala di am leneen loolu rek moo tax mu waral mbir yëpp mel na rek ay soo xoolee àdduna lu muy dox ci yenn dëkk yi soo benn euh, gang daal di taxawee fenn daal di yor ab quartier di ko di ko gérer wala mu yorub ville wala mafia dootul nangu beneen mafia ñëw jëlaat na leen rey ko lu nekk ñu def ko ko ndax seen i intérêt bopp. loolu la ñu doon leeral ne su fekkoon ne am na li ñuy dalee El Cheikh nii am na benn cohérence su fekkoon ne ngir yàlla sonn tamit su fekkoon ne ngir daal di défendre diine yàlla ji su fekkoon dafay dugg ci baab bi nga xam mooy baabu radd naam ala ahlil bida day dugg ci ba inkaar munkar duñ ko beral El Cheikh. ba am na ñu bari ñu néew Sénégal ñu nekk Sénégal ñu woote woo lu raw li El Cheikh woote woo te ñoom waxuma sax duñ leen xalaatuñ leen dal seen kaw waaye bal dañ leen di défendre bal ku leen dal ñu ne dafa ñoo dal sunu sunu mag ñu sunu mag ñu baax ñi kon loolu lay wane incohérence bi am ci ci dal yi ñu dal ci El Cheikh mooy amagut taalibe rek mooy ku mu amul ndey la waaye fi tamit bay taalibe mbari fekk fukki ak ñaar fukki at dinañ ko boole ci nit ñu baax ñi dinañ ko boole ci wàll yi ba ko tuddati ñu ne la da ngay ñëw contre contre mag ñu baax ñi nii lay demee euh, Sénégal noonu lay doxe ndax koo fi gis rek ba muy tàmbalee woote naam critiqué nañ ko contre nañ ko bañal nañ ko def nañ lépp xeex nañ ko waaye su nee ba ñëpp nangul ko ah am démagogie la li nit ñuy bëgg lañuy ñuy ànd ñu ànd ak ñoom mën nañ fee tudd ay exemple yu bëree bëree bëri yu am Sénégal loolu dugal li xam ne Lamine Sall wax na ko xam ne moom nag mun naa wax tey lii su ma wax la Lamine Sall moom euh, euh, ay waxam <coughs> Euh, jarul yenn saa yi di ci bàyyi xel lool waaye nañ ko indee dafa ñëw rek dafa bokk ci ñoom ba pare ñëw firndeel mbir boobu moo dañu indi yoo ci su subaa su xëyee dellu ci ginnaaw génn ci ba set wecc ndax cee génn ndax leen tax wax yenn saa yi du yàlla subhanahu wa taala moo moo tax waaye vidéo <laughs> Matar Sall bi ci nekk ay catastrophe dafa bari dafa mel ni dafay gën a feeñal boppam euh, waaye ak yabaate da cee nekk parce que ngi fan yëpp mi ngi ñu ngi sonal nit ñi el cheikh dalil dalil foog alquran wax foog sunna wax mais li mu wax fii nii yëpp moo pire la el cheikh di woote woo li mu saxal nii nan la ko mën a saxalee ci alquran ak sunna naka la ko mën a saxalee ci alquran ak sunna waaye balaa boo xam mbir mbir boo xam ne mi ngi koy répété lu bare bare mu ko ci yokkal mi ngi dal el cheikh ci lan ci ne lii de tariqa tijaan dafa am ay shurut mën nañ ko laaj shurut yooyu fan lañ ko jëlee ndax yàlla subhanahu wa taala moo ko joxe nañ ko fekk alquran danañ koy fekk ci ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am su ne charte mbir mooy lan su am mbir charte la ci ci mbir boroo xam ne ni koy tekkee mooy boroo xam ne dañuy wax ne charte mooy lan wala usul su la dana la wa ma wala yalzam min wujudihi al wujud mooy lan mbir mi charte la ci mbir mi su ñu mbir mi charte ci mbir mi lu muy tekki mooy fekk la ñuy wax charte la ñëwut mbir ma moom mënta am su ne la mathalan lii charte wujub la ngir mbir mi war foog mu am condition bi daal di ci daal di ñëw su condition bi daal di ñëwut kon mbir ma mënta doon loo xam ne mënta mënta war mënta nekk loo xam ne eh, day doon eh, day doon waajib al waajib li ko boo xam di firee bon usul dañu naan لكي آه، تعرف ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما لو خمن الشارع دكو ساك ني داف كو واي تي اك فيرم دكو ساك ساك غو خمن غو غوم انسيست دغو دغر لا نكاي حكم بنك ما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه ما لو خمن نيت سوكو ديفي دافاي am yool waaye su ko bawee nag day mérité li nga xam mooy mbugalu yàlla sunu sunu borom dafay defoo dafay defoo ba bakkaar kon suñu ne mbir mbir mi daal di eh, nekk lu su fa ba nekkoon mbir mi doon waajib su nekk mbir mi charte la charte sixa mooy ne condition la pour mbir ma daal di wér saa yu fa charte bi nekkut mbir ma mënta wér ba su ne lii di jàpp. dafa wala laab dafa bokk charte ci julli nit ki fekk laabul naam fekk laabul du mën a du mën a julli kon su jullee te laabul jullee mënta mënta wér beneen partie beneen ne wala yalzam min wujudil wujud waaye du sàggan ne nag charte ba ñëw na rek mbir ba am na mooy ndax yeneen surut mën na faa nekk nit ki su nekkoo euh, ngir nga julli fa nga jàpp du sàggane saa bu jàppoo rek war a julli naam euh, wala saa bu jàppoon rek dafa war a euh, julleem wér na déedéet mën naa jàpp mais am yeneen condition yoo xam ne moom indiw ko lu ci mel ni mu waroon a jublu qibla jublul qibla ci ka ci ka ci tayeef ak lu demee noonu tay kon lii nga kon lii li aju ci jaamu yàlla sunu borom la chaque ne képp ko ñëw ne mbir mi charte la ci dañ ko war am dalil ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon shuruut yi nga xam ne ci shuruutu li nga xam ne mooy werd tijaan fan la ko jëlee ci alquran ak sunna fan la jëlee ci alquran ak sunna ñu ne werd bii nii naam ku ko jël pour ay loo xam ñu ne danal la ñoom lii tudd yàlla sunu borom kese la dana la dara nekk ko ci yéen zikrullah subhanahu ngeen di tere li may wane tappale gi ñuy tappale ñoo gën tey li ñuy def soo leen ñëwee ne yéen li ngeen def ne bi daal ñu leen leen zik ñu ne la da ngay tudd yàlla ngay ngay tere tudd yàlla ngay ngay dàq ba pare dellusiwaat na la tudd yàlla bi nga xam ne nee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee léegi pour nga jël ko sax foog ma am autorisation nit jox ma ko sinon jox bu ma koy def mënta wéer mënumaa nekk ab tiijaan loolu fan la fan lañ ko fekk alquran ak sunna suñ ne leen seen référence nekk alquran sunna ñu ne suñu référence alquran sunna kese la wallahi nañu indil fan ci alquran sunna la ñoo ne charte pour jël wërd foog ab nit jox la ko silsila ba ci Ahmed Tidiane sinon mënoo nekk Tidiane sinon sarta wërd Tidiane moom yoroo ko fan la ko jëlee ci alquran sunna kon lu tax muy kon di laaj al cheikh naan ko dalil dalil dalil dalil te cheikh di indi ñoom la ñuy jàpp indi loolu mënut a nekk dalilam amut lu dul ne Ahmed Tidiane moo ko wax amatu yenn yonent bi sasam moo ko waaye doo fekk ci téré sunna yi doko ko fekk ci alquran kon gis amna na yeneen masaadir amna na am na yeneen ñoo am na beneen manhaj talaqi bu wuteeg manhaj talaqi bu ahlu sunnati wal jamaa kon lu ta sunna leen yéen alquran sunna do la fa yam ñu ne alquran sunna yeen te li tax ngay bokk ci sen sen sen tariqa charte ba wala shuruut ya mënuñu la indil fu mu nekk alquran sunna amul sax lu ñu mën a tawil amul lu ñu mën a tawil ba indil la ne la charte pour werd wala pour def ben zikr fo nga jëlee ko ci silsila ci diw ci diw ci diw ci diw ba Cheikh Ahmed Tidiane bal sa amul charte bo xamné pour wedd lu mu doon ci l'islam don ko wara jël silsila ba ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sallam wala nit dala ko wara dala ko war jox la chaque ni li nekut ken mënu ko tuddé lu dul tappale kenn mënu ko tuddee lu dul lu dul yabaate naka la nit ku melni nii taxawat a nan nit den laaj ay dalil nan diw indi dalil lan mooy sa dalil wala lii wute na alquran wute na ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy dalilu shurut yi nga xam ne indi ngeen ko ci mbir yi ndax ndax mbir wér na wala mbir war na la chakk di amul ki sikki sàkk umma bi mus ñoo wute ci ne yàlla subhan yàlla subhanahu taala la jóge te yàlla subhanahu taala ni mu waxeek njëkk ñi mooy la mu indi ci alquran lu mu jox yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam kon nangu leen ñaari mbir yi mooy li ngeen mbir nekk ne amul dalil wala nga nangu tamit ne ko am na ngeen yeneen addil lay wuteeg lan nga xamné mom la mag ñi xamoon xamone mo jubut ci mag ñi baax moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am ñu topp seen ginnaaw ñoom xamuñu loolu amuloon benn zikr amuloon ben wert bu dun jël diko def ñu leen foog ngeen am charte wala charte sanga pour ngeen def ko amut hatta loolu se kon amna sax ñu wa dan nañu ñun suñu werd bi no charte ba war dem ba ci Cheikh Ahmed Tidiane nga am silsila bu dem Cheikh Ahmed Tidiane lolu la Cheikh dafa la dalil waye ba nekul fofu moment loolu moom a gënoon tax jóg ci wax ji tey mi ngi taxaw di wax ne kii di Elche imposteur la lu nekk mu wax ko ko te la chaque ne Elche imposteur la mais ñu liñ bëgg saal mooy nekkul moom kese mooy imposteur xanaa dañ ko gën a yëpp ci imposteur yi rek comme ni Sénégal ni muy ni muy doxee yenn saa yi ñi gën a néew doole la ñuy jël te ci kaso bi ñi nga xam ne ñoo am doole ñooy nekk di dox ci mbedd mi man xam naa koo xam ne Sénégal tudd nañ ne doon na joxe li nga xam ne mooy werd tijaaniya doon na joxe li nga xam ne werd li nga xam ne mooy achadaliya doon na joxe li mooy werd li nga xam ne mooy alqadariya ñett yooyu doon na ko joxe te sax na ñu tudd ne moom ba mu nekkee bañ koy yóbbu ci géej gi ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal jox ko li nga xam ne joxaat ko wedd yooyu nag mu nekk muqaddam bi nga xam mooy muqaddam eh, mu nekk muqaddam yi gën a ko muqaddam mutlaq mu nekk fa muqaddam mutlaq di joxe werd yi ba ba mu ñëwee joxewaat na werd yooyu ñett yi boole ko di moo la ko di joxe bari ci biir wax da ngay gis ne moom balaa mu koy jot yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxoj ba muy weddi yooyu jëlewoon na ko Cheikh Abdul Qadir Jilani mooy Abdul Qadir ya jëlewoon na ko Cheikh Abul Abul Hasan Achadili mooy wedd Achadili ya jëlewoon na ko Cheikh Ahmed Tidiane ku nekk jëlewoon na ci ñoom werd léegi damay bëgg xam ndax waa ji léegi te dina taxaw naam ginnaaw lii ñëw daal di ñuy leeral daan ne kon ka daan ne ah El Cheikh de moom nekkul lii kese moom moo ko njëkk a def te ka def loolu moog moomam ndax loolu dinañ ko ëndil soo demee ci téere bi ñuy wax am la ñuy wax sax moom la moom la nekk ginnaaw gi mooy al muqaddam al mutlaq wute nag muqaddam mutlaq nga al muqaddam al mutlaq moom leen du ko kenn du ko féete kaw ci ci muqaddam yi alors que soo demee ci benn risaala benn risaala bu gàtt euh, lay def ñu ko tuddee wa yasalunaka an il wird al maxuud euh, def ci nettali lii di al wird al maxuud naka sëriñ bi sëriñ bi naka ko naka ko jotee mi ngi expliqué mi ngi ko jotee ginnaaw gon bañ ko yóbboo Mauritanie foofu la yonente bi salla foofu la ko yonente bi salla sallam fee ko li woote wa bari nañ mooy bi salla sallam gi dama faatoo comme ni mu nekkee ci vidéo bi nga xam ne dañuy télécharger yonente bi salla sallam benn salaatu fatiha lay def télécharger ko euh, yonente bi ñëw mu ne ko nuyul yonente delluwaat ay mbiru yéeme te dinañ ci dinañ ci egsi waaw egsi ci kon ki ki yonente al werdul maxuud tamit ne def gis yonente bi salla sallam ci Mauritanie yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jox li al wird al maxuud ginnaaw kon mu ko joxe woon ba muy nekkee ci géej ga ginnaaw ba mu ko ñëwee jox ko ñetti werd yooyu mu ko doon joxe mu ñëw daal di koy jox nag beneen werd mu tàmbalee nekk léegi nekk ci werd boobu donte am na be am mbir boo xam ne du jara taxaw la ndaxte ginnaaw ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe werd boobu dafa am benn wax ju mu wax mu nekk wax joo xam ne la chaque ne wax ju jara taxaw seetlu la ak wax ju jara xool la wax ju jara jàngat la mooy li mu wax ne te da ko mooy am na ay werd yu mu yu mu doxoon di joxe mooy chadliya qadriya tijaniya su ko joxee nekkoon ci werd yooyu nekkoon ci benn beneen ba ñaar ñett bu mujj gi muy joxe ñett yëpp waaye fa mbir mbir mu bu mu wax mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw jox ko werd ne ko mu bàyyi werd yi yëpp te lam ko jox moy alquran kon la dañ ci déggé ne weeru yële mom nekul alquran la fekk na loolu tax a setu la bam nan ci la indi wax ju nan ubai'u al-yawm ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu وأسأل al-wafa ذللت عابدا خديما للرسول من عام عيسش إلى عام الرحيل كنتي جمن جوجو ci at woowu noonu ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe li nga xam mooy wérdul maxuud muy wax ne nag kon lam kon moom la ko jox mooy téeréem mooy téere yàlla bi mu naan kitaabuhu al-aziizu saara wirdan lii wa nafa anni idaaya tarda mooy kon lii di téere yàlla bi moom moo doon li nga xam mooy wérdam moom leneen lu dul loolu mu dàqal ko ko mu teg fële kon nga xam ne leneen mu teg fële ba nekkul téere yàlla bi borom am lu gën gën a tee jàngat loolu naa ne zahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa kon dafa am loo ci loo nekkoon mu nga dem ba ceeg am lu lu feeñ mooy lan mooy ne jafandu ci alkitab te loolu moo wér ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ay sawaab kon la mu nekkoon démb balaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko feeñ di ko mooy tijaaniya chadili al qadiriya ndax am nañ sañ-sañu laajte ndax kon loolu nekkuloon sawaab ndax loolu nekkuloon ci téere yàlla bi sunu borom la lu ñu mën a laajte la ku nekkoon ci am mbir ba ci yàgg mu ne dahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa bi xadiis al Mustafa huwa sawaab comme ni ñu koy leeralee feneen ci ne mer rek ku gis ay euh, biddéew euh, euh, weer bi feeñ xaw wala jant bi fenk la chakka ne da ngay da ngay ba biddéew foofu ndax am na lu gën a leer lu ñëw donte am na ci yeneen i feneen fu muy wax fu ñuy waxee topp nit ki jël werd achadaliya mu jël werd qadira tijaniya lépp sawaab la waaye loolu mun mënta wutiwul ak lii ndaxte la chaque nekkoon na ci loolu kon ba mu nekkee ci loolu jàppe woon na ko sawaab loolu loolu du problème waaye ginnaaw gi ba mu ñëwee ne li nga xam ne moo feeñ léegi ci moom mooy ne li sawaab moy top hadith yonente bi sallallahu alayhi wasallam top tire yàlla bi top hadith xadisu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne looloy sawab ba pare am am werde bayele la chaque de la question doit se doit être posée sonu xel yàlla daf ñoy xel ñuy xalat yàlla daf ñoy joxe xel ñuy xalat donte li sa taxuma juk ci wax ji day waye ci biir wax ji la réflexion bi Euh, dikkal ndaxte la chaque année ku ñëw nekkoon ci am wér di joxe ñetti werd dem ba yonent bi sasam feeñu la far jox la ab werd nga ne werd ba ma jox mooy téere yàlla bi nga ne feeñ na nag lan ma jox mooy jafandu ci téere yàlla bi sunna te loolu mooy li nga mooy sawab kon la chaque année mën nañu poser question kon la nga nekkoon mu nekku sawab donte waxoon nga ci njëlbeen nga ne mooy sawab loolu ba nga jàppee ne sawab la woon moo tax mu waxoon ñett yëpp ku ko jël baax na waaye nag bi ñu am bi war dul maxuur xam ne moom la wax ne mooy téere yàlla bi sunu borom ah dañuy gis ne li mu wax ne mooy sawab mooy lii waaye ba tey nekk loolu mooy tax a jóg li ñu tax a jóg mooy leeral yi mi nga leeral ci ne moom doon na joxe ñetti werd yépp te wax na tey li nit ñi di coow eh, ngir di ci dalee el cheikh moom cheikh ahmed tidiane eh, joxoon na ko ko ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi jox ko bu nekk ca al muqaddam al mutlaq mënoon a sànq jant bi feeñ ba mu ba daal di koy dumbuyuloo di xool li nga xam ne mooy eh, étoile yeeg nujum yeeg xamar bi mi ngi ko wax ci géej ga mooy ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee feeñu ko jox ko ndigal ci ñett ya kon boobu mu jiitu ba mu koy jox li nga xam ne mooy alwirdul maxuud nga xam ne Mauritanie la ko la ko joxee moom la ñuy wax ci wax ñu naan moom naan ذهلني طلوع شمس النظر إلى النجوم في السماء والقمر طلوع طلوع الشمس mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam an nujum fi السماء والقمر nag mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoom la yoroon seen i werd ñu koy wala boog ñu ko doon jëlee ci ñoom ñu jox ko ko mu naan anitu billahi an al arbaabi wa bi muhammadin an al asbaabi muhim kii bind téere mi nen wa xilaala gaybatihi albahriya jaahu sayduna jibril alayhi salaam وسلب منه الأوراد الثلاثة ثم تلقاها من جديد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فصار المقدم المطلق فيها لأنه تلقاها عن الرسول كما تلقاه عنه الشيوخ الثلاثة من جينا كن بمو بنكو يوبو بنكو اكزيلي تيجيجي تي بوبو لجبريل عليه السلام داري نيو نيتي وير ريب جبريل داري كوي جيل تي موم كون وير ريب جيلون مون كو جيل تي موم دونتي وير دي لي لا شاز لي واخنا نكو جيلي القادر انون واي آه، تيجاني موم باتاي كينو هو فم كو جولي وون تي تي آه، نيت تي تي العالم آه، العالم <laughs> الظاهر واي ممكن جبريل فنيو نيت ويتي مو نانغوكو مو جيل الورد بي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ديريكتومون كوم نيكو نيلي جيل وون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيت ني مو اشي عبد القادر جيلان واشي ابو الحسن الشاذلي واشي احمد التيجاني عليهم السلامان وعلى أربعة الردوان وكان وبعد رجوعه من غيبته البحرية كان يعطي مريده الأوراد الثلاثة على سبيل المثال إن أخاه ومريده الشيخ إبراهيم بكي كان عنده الورد التيجاني والشاذلي وتلقاها عن الشيخ من قلنا لهم جوجي كون شي جيجي آه، دون جوخي ليغا خامني موي نيت ورد يوي نون موتا آه، آه، شيخ إبراهيم بكي moom wedd ak Tijaan Shaadili mi ngi ko jëlee ci moom am na benn euh, tanbih mooy def mooy ne euh, waxul fii dafa jëlee wedd bi ci Ahmed Tijaan sànq dama wax dafa jëlee wedd ci Ahmed Tijaan wala déedéet wedd bi fi mu ko jëlee moo ci yonent bi saa san directement kon doon na joxe werd wala yoroon na werd bi ba mu fi nekkee doon na ko wedd ba ñetti wedd yëpp doon na ko wedd balaa mu dem naam ñaari weddi xamoon nañ fi mu ko jëlee weddu Tidiane ya kenn mën fi mu ko jëlee ku xam tamit nga indil ñu ko ndax loolu histoire dafa am solo xam na histoire pour jox Iba Der Thiam dugal ko ci biir waaye mujj gi moom demee géej gi moom dañ ko dee jubli dafa jël weddi yi teg fële mu jëlaat weddi yi jëlee ko ci ki nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko ñett ni ñëlee jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax mu nekk ci la ko jëlee waaw kon koo xam ne nii la jëlee wet ndax amoon na droit joxe weer bu amuloon droit joxe weer ndax dafa am lu mu xamuloon ci charte tariqa tijaniya ndax euh, ñii di dal ci el cheikh dañ ñëw dal lii wala duñ ko dal wala dañ may wax wérut su may wérut ma xam ni kon ma xam ni mbir mi euh, mbir mi mbir mi wérut ànd ak ne euh, dinañ ci ñëw ci kanam mooy qadiya comme ñoom ni koy defee comme ni ko kii waxee gis yonent bi sallallahu alayhi wa la chekk ne lu ñu yàgga lu yàgg wala la waaye li may laaj fii mooy kon kon am na avant el cheikh ñoo xam ne la koo xam ne moom jëlee na directement weddu tijaaniya ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw boobu doon na ko doon na ko joxe ndax loolu mun naa wér wala munta munta wér ndax loolu lu ñu war a ŋàññ wala mu ko ŋàññ su fekkee loolu mun naa wér kon lu ñu mën a dalee ci koo xam ne moom danew ci Cheikh Ahmed Tidiane la jëlee moom kooku sax moom Cheikh Ahmed Tidiane ba tey am na digganteem muy Ahmed Tidiane jëli ci yonent bi jëlee mu jox ko moom waaye koo xam na ki nga xam ne yonent bi sam koo jox comme ñu joxe Cheikh mu joxe na loolu mun naa weer wala loolu mënta mënta mënta wér loolu laa bëgg ñu daal di ma ñu daal di tontu. mooy li ñu bëgg xam ci waxam ji mooy comme dafay jàng dalalul xayraat te ñu koy bàyyiloo xel mooy lii di taxaw ci sukkoon ci arab waajib loolu waajib la arab du liir naam lii di maska suy taxaw kon dalalul xayraat dalalul xayraat yi loolu du arab kon loolu ñu si bàyyi xel euh, mooy li la mooy dalil ci ne ku leen dalal lu xayraat ne kooku ne ku ko liir dafay gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mooy dalil ci alquran ak sunna sun sun accepté woon ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni dina ko gis jaaxaratan fii àdduna ginnaaw ba mu faatoo parce que loolu yàgg na leeral ne amul lu ci wér xel nangu ko l'islam nangu ko dara nangu ko waaye nañ nangu ne kon dañ koy gis waaye lan mooy gis yonente bi sànn ku jàng dalil xeer da ngay gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu fan lañ koy جمن جيس يونت بي صلى الله عليه وسلم فلان ماي دليل فيكون سي مون نيك ملان ماي دليل بي جيس عملو مون نيك اك ام دهوتي لان ماي دليل نينكو جيس واي فيكون نانو نينكو جيس لان ماي دليل جان دال الخيرات اقرنا سنة نينكو جيس فان لا نيو فيك لولو خلا دا ولا نيو نانغول لا نيو امنا فنين فيو جيلي فول القران والسنه لان ماي دليل نيك نيت كي مونا الفاتحه بن بير nga mel da ngay télécharger subhanallah azim wallahi ñii joxuñu yonente bi sam dayoom yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ci benn per nga ne transvaté mu ne mu ne mu ñëw nuyu ko mu daal di delluwaat kenn xamut lan luy lu mu lu mu doon loolu tamit lan mooy dalil bi ci alquran ak sunna mooy ni wedd benn peru salaat fatiha wala nit mun na egg ci fenn fam day wedd benn salaat fatiha yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw di nuyoo waate di dellu mugonna kii di nu mu tudd sa Matar Sarr mu jéem ñu indil ay dalil naam